yàlla defal lépp lu gën ci ñoom te musal leen ci cat ak lépp luy lore xama may leen jaboot gu bari te barkeel xama liñ ci liñ ci liñ ci mbébét daal ba dugg ci yàlla bu yàlla tas seen yaakaar ñun ñaan ñëpp incha allah mhm. di leen nuyu yéen tamit leen ñaanal jàmm bu baax a baax mhm. waaw sama diggante ak saatu baa nag yàgg na waaw sama diggante ak Sa Touba du sax tey waaw boobu mën naa ne da doon ñëw Dakar di dellu Touba di ñëw Dakar di dellu Touba mhm. waaw ba tey yàlla def gis nga li yàlla di def tey man ak moom ñu bokk nekk fii xama nekk nekkin bu rafet man ak moom kenn mësuñu dégg ci dara comme ni mu koy waxee chaque jour xama mu nekk nit koo xamante ne lu ma xewle fu mu mënta nekk dina ko bàyyi mu ñëw mhm. wallaahi fu mu nee day bàyyi mu ñëw yàlla dogal na man takkam yu kii yëpp xama dafa daaw mu fekk yi ak mooy loolu xama mhm. mais bii moom xama moo tax ma ne woon bu doon mhm. fongale mi sax xama incha allah dinañ fexe ba teewee ko incha allah looloo waral suñu teewaay moom mu nekk suñu frère dara mosul changé di ko ñaanal daal sëyam bii lépp lu mu ci séntu rek yàlla na ko suñu borom defal lu kawe njortam. Mm-hmm. ak bépp say bu ñu takk. Mm-hmm. mais waaw bon li ma gën a marqué li ma gën a marqué ci saa mooy dafa nekk nit boo xamante ne dafa gëm boppam. waaw parce que ama tey dafa difficile nga nekkandoog ay nit. di dundandoog ñoom ci benn dund. Mm-hmm. maanaam ngay nekk ak ay nit di dundandoog ñoom ci kaw rek par exemple làmb. nga jékki-jékki changé dundin. yàlla yàlla jubal sa direction feneen. xam mu gëm ko. ñenn ñi naan dina dem ak du dem ñi naan day sóob day naxaate xam nga mm-hmm. moom mu gëm boppam rek mm-hmm. gëm ko gëm ne li muy wax moo nekk ci moom ba tey gis ngeen ni yàlla def foo tourné sax xam man mii damay tourné ñu ne may laaj ana Sa Touba xam nga mm-hmm. donc tey bu fekkoonte ne tey mën naa ne ay naxaate la ak yooyu xam nga mm-hmm. tey du demee nii du ñëw ci kenn ba keneen di ko wax keneen muy demee neneen bépp yaakaar daal bu nit am ci moom ba ñëw ci moom mm. yàlla bu ko suñu borom tas yàlla na ko suñu borom suturaal mm. ba lu nit yaakaar ci moom bu ñëwee ci moom <clears throat> mu antu mm. le fait que soriwaay bi Papis parce que kenn ku ne xam na ne Bambey mm-hmm. du Dakar te jot tamit yombul ses boobu aussi tamit lan nga ciy wax waaw loolu noonu moom moo ñu ko ji quoi moom moo ñu ko ji moom laa lay wax parce que man am naa fi ay cant kese waxuma la takk mm. soxna cant rek mu jóge fi Touba. Mm. ñëw ba dakaar mm. xam nga loolu looy loolu mooy li gën a ndaw xam nga. donc tey moo tax ma ne la tey bu doon Tamba. wala mu nekk foo xamante ne dafa laaj ñu dem fanaani mm-hmm. wallahi bu si kattanu yàlla bu nu suñu borom mayee a ak mm-hmm. jàmm dañuy dem mm-hmm. wallahi yee ba mënu ko ji mais yow nag da ngaa raar de kenn gisul a <laughs> amin <laughs> mais lu waral raar bi quoi ba pare génn leer macha allah non xam nga bokkul non xam nga peut xam nga ba pare léegi xam nga pawis bee ak bi bokkul eh. léegi damay xëy di wër kuus ak meew ba ngoon jot xam nga li ma la est-ce que comprends nga loolu moo tax mais loolu la rek mais du dara te xam nga comme xam nga xam naa fi ngeen jëm hmm. gars yi dañu ma <laughs> bàyyi ma ñëw rek. na laa bëgg. <laughs> non non non non non yi eh. benn affaire moom xam nga dañ ma nam dañ ma tàmm ci ginnaaw Moodu. waaw loolu kese la dañ ma tàmm ci ginnaaw Moodu. xam nga ay pom ak. yee xam nga loolu la dañ ma tàmm ci ginnaaw Moodu. donc buñ ma gisul c'est très normal xam nga ñu laajte ma. mais tamit suñ may laajte tamit nañu am nañu am xalaat bu positif quoi <clears throat> nañu am xalaat bu positif. surtout loolu c'est très important quoi. xam nga hmm. man Mm-hmm. tey man comme niñ koy waxee mm-hmm. man damay nekk ci ci yëf wala ma nekk ci sama liggéey comme ni ko yenn gars yi waxee parce que mm-hmm. seetaat naa interview yëpp xam nga damay nekk ci sama mbiru bopp pourquoi pas tey gisuñu ma ku ci nekk warul am xalaat bu rafet dégg naa première xam nga Modou Ama bu njëkk bi ñëwuma essayer en comprendre donc tey mais nag man du ma balaamee tey ñi nga xamante ne dañ ma gisul di wax essaye dégg loolu mbëggeel la rek mais maanaam ñi may balaame mooy ñenn ci seen liggéeykat yi nga xamante ne dañuy dem fekk koo xamante ne xam koo xamante ne yàlla xam na ne sax xamul sax xama li mm. waa ñoo xamante ne man munuñ duñ ma sax jot téléphone xama ñëw tàllal leen ñuy wax du n'importe quoi loo xamante ne dara leeru leen ci mm-hmm. xam nga man sama diggante ak Modou defee naa ci seytaane seytaane mënu mm-hmm. ci dara loolu laa moom lu ma ci wax mais mais mais attends am na loo ci jàng tamit attends am na loo ci jàng parce que coow li bari woon na gars yi ñu ngi xaajale ñu ngi départagé xëy na yow mi nga xam ne toog nga bu daan benn 15 jours wala 25 jours am na loo ci jàng. waaw moom la ñuy wax rek. gis nga àdduna moom. nit ñi dañoo bëri te wute. Hmm. xam nga jàngee naa ci lu bëree bare bare jàngee hmm. naa ci ne euh, am na ay nit yoo xamante ne dañu ñeme yàlla quoi. parce que tey nga ñëw di wax ci nit koo xamante ne. dégguloo ko gisuloo ko jotuloo ko xam nga nga ñëw wax ne lii moo ko teree ñëw wala lii moo ko ngant amul mindeef mindeef. mindeef bu la mën a wax ne la. Hmm. man maa xam li tax papis ñëwul amul. ok amul amul. mais problème amul. mais problème amul dégg problème amul déggoo li ma la wax léegi xanaa. dama la ni defee naa seytaane sama diggante ak Modou. mais deuxième bi bu yàlla defee jàmm incha allah bu fekkee fii defuñu dara mu fekk ñu fi. Hmm. incha allah dañuy ñëw. papis nag yàgg ngaa préparé mbër xam nga gàllaaj xam naa am na ñoo xam ne ay ibaadu la nag gëmuñu gàllaaj combat dimanche bii passé papis nan nga ko gisee quoi. ndax oh. bokk nga ci gis-gis ak sénégalais yi ne tafaatin doxul tafaatin benn moobul la bu ñëw rek ndax dangay ngay accepté loolu wala lan nga gis quoi. waaw avant tout damay masaw man combat boobu li ma ciy wax chaque jour rek ñi may masaw mooy ay supporteru tafaatin Tine laa ciy masaw mm-hmm. ak entourage ñi doon werante ci Tapha mm-hmm. ak ak waa kër Aziz Ndiaye mm-hmm. ak ay ak ak ak supporteru Balla Gaye ñooñu laa ciy masaw parce que tey benn côté mm. boo degee ma ne waa kër tafaatin bon boo xalaatee liñ doon werante avant combat bi ku ci nekk boo demee di foncer def foora hmm. def liñ doon werante ak ni combat bi demee bi ñu xëyee amul du ñu am lu ñu wax ah. dañuy am leen di metti mhm. beneen bi li tax may masaw beneen camp bi parce que dama xam tey boot mbër waaw mu ñëw xam nga tey Aziz Ndiaye tey na wax alhamdulilah tey bu mhm. Balla Gaye daanoon maa reetaal lu ne dina ko dégg parce que dafa eh. bàyyi këram dem ngemboo kër mm, Balla Gaye mm. yooyu yëpp man dama ko doon dama ko doon calculer di xalaat tey ku ci nekk parce que yooyu laay xalaat xam nga mm. combat bi nag man du ma wax ne ay comme dañu jàpp Tapha wala dañu kii Tapha bu xoolee ba ñu jàpp ko dafa yeb sénégalais bu amee combat bu toll ni Balla Gaye avant combat bi lu nañ mu dégg ko dafa ragal dafa lii dafa lii esalma la mu ñëw ba ci jouru làmb ji Balla jàpp ko Tapha Tine moo bu loolu amee dafa Tine moo yab sénégalais yab nit ñi. Hmm. waaw nan nga ko jàngatee parce que ko fay xaalis bu toll noonu mu am ay mbokk dëkk ci biir séeréer yi essayé dégg dëkk Sénégal sax laay wax hmm? ak kër yi macha allah ni ñu fi baree ñu lay jàpp ci gàllaaj gëmuma loolu sax gisuma sax loolu. gën a gisante ruq yi parce que tamit non non dama lay wax sa mbër mbër boo demee ba mënoo dindi takk tak takk. Hmm. takk loxo takk loxo. Ah, te yow mu xam ne ne yow koo mënta dajal. Hmm. ah dañuy def pour takk say loxo. Hmm. yow mënoo dindi sa takk loxo mën nga bàyyi affaire yi sport la nañu jiital sport d' abord Tapha Tine macha allah forme bi mu indi Tapha Tine gisuma woon sa arbitre